guddi gu am solo la guddi gu ñëppi xaar la waaye waxtaan ci guddi ko moo tax bu burdu passé juróom-ñetti fan yëpp lu ñu def dañuy waxtaan ci Seydina Muhammad waaw xam nga ko waral ndax lee liir la waaye lii nag màggaay la dund la mm-hmm. kon jikkoom jooju yàlla ne kon nag ñëpp tey bane aadam nañ comme yow mais dama la sepp ci ñoom ndax sa jikko la tàggat ca aras bala nga ñëw jamono mm-hmm. jikkoom jooju nag kon ñun kenn ci nekk war nga ci jàng kan mooy yonent Yàlla Muhammad Abdullahi baayam Abdullahi de kuñ naan tey Haasim moo ko jur bi mu ne Abdul ko jur ñu ànd ak moom ci suuf waaye ñu yéegaat ci kaw ku ne ku nekk ab nga ndey am nga bàyyi mais def ñu gën ndey gëm ñu bàyyi mm-hmm. kon ñun lu ñu war a jànge ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam comme na ko Seydou Haasim Maalik mm-hmm. jikkoom ju tedd ja meloom bu baax waa rafetaayu xalaat ak jëf ak yéen ju rafetal ñun ci lañ war a jàng moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi bi muy waajee dem àdduna bi muy waajee génn dafa am benn baat bu rëy asan lu mu wax mhm. ci jawaalimul kalaam dafa taxaw yow mu arafa def congrès yëngu na congrès yi tubaab bi def yëpp yonent yàlla Muhammad ku jëkk a ñu ko jëkk def sallallahu soviétique bi nga gis ni asa wala pas soviétique mooy union européenne bii rasulullah ko defoon ca Xudaybiya bi maanaam kon tubaab yi da feex nañ ba nax jullit ñi jël seen yuur ci leeraay adduna bi tëggaat ko ba mu pare def seen looy bopp yaa koy wax léegi mhm. loolu moo dal tey européens yi ak africains yi parce que européen asiatique arabe ñoom ñëpp nit nit lañu mhm. waaye na neen seen nag may bàyyi leen ngeen sàkko xam-xam ngeen mën a téye sa adduna bu ngeen sàgganee nag tey seen noom rocc seen yuur gi la ca baax bàyyi leen ngeen di dox di wax di tëral rek mel ne ku ñu dof mhm. loolu moo dal tey adduna bi bi maanaam kon yonent bi wax ne man fii ma tax man rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla joxatuma mooy bind ndax yonent bi moo gën a dëgër loxo mi mënut a bind mhm. yàlla nee na joxatuma may liir xam nga rasulullah ba ko joxe feuille bi di ko liir mhm. xam nga loolu feuille ba ko joxee lu lu weex lay gis waaw ñu ne ñun ñi jàng histoire di gëstu ñu ni yàlla tabaraka wa taala fa def lu mu def rasulaay kenn bëte bi ni mu leeree barakallahu loxo yi ni mu dëgëree barakallahu lu tax boo ko jox bi loxo bi damm ñu ne ëllëg àdduna mën a dox ku mel ne oustaz Dia nga xam ne day falsifié mhm. mën na bind na lii rasulaay ko bind te ndax am comme en tant que gëm naa rasulaay dama koy dëggal yàlla na ko waxal léegi kon communicateur maanaam un journaliste rasulaay kenn jiitu ko ci mm. moo tax mun a al jawaahimul kalaam mboolem luy defar àdduna bi man yàlla man Mouhamed Rasulaay yàlla dégg na ko sama kàddu gii lan la njëkk wax nit ñi. Mhm. rasul xikma maxaafatullah soixante texte la nag. Mhm. basan mhm. dañuy xëcc ci tuuti rek soixante texte la. waaw xam lan la njëkk wax ci texte bi. waaw dëgg dëgg yàlla jox na ma luy defar adduna bi ci sama sama sama gémmiñ gi. lam njëkk wax mooy ah rasu bopp xam-xam pire mu ne mooy ragal yàlla. dégg nga wax ji. kon doomu aadama loo bëri xam-xam xam-xam juboo segg yi ñoo la gën. Hmm. yonent yàlla Muhammad loo bëri xam-xam nee na te juboo segg yoonu gëm. dëgg la Sëriñ Bamba ñëw feewlu ko ne ko xam-xam boo ko jeexoo naan xam-xam fànn yëpp te juboo mbaam a la gën. Eh, dañ wax ju baax. Mm-hmm. bi maanaam parce que nit ki mën a am xam-xam ci léppam mais bëgguñ seq xeeb ko ndax lan juboo dem. Mm-hmm. ni muy falsifié ni mu lay naxee ci ci ci moral moo tax yonent yàlla xam ne kon rasul xayma hafatullah lu mu ci tegati. fa man tawaada allahu la aw rafaa mhm. fexe leen ba tey képp ku am xam-xam doo du tool toll foo toll naan am naa xam-xam ne tekk ba ñu am xam-xam jël la nga nekk journaliste jël la nga bind jël la ngay wax mbaa ngay commentaire ba naa ah, kii kat am na xam-xam lu mu ci tegati fa iza ataakumul karimul qawmi fa akrimuhu kon loolu ñu demee Tiwaawan dem fa Touba dem ci eh, Seyna Limon Mahdi al Muntazar mhm. dem ko Seyna eh, eh, Seyna Cheikh Cheikh Omar Foutiyou Tall mhm. dem ko Touba dem ko Canaba dem ko Medina Baye fépp mhm. mu ne fa iza atakumul karimul qawmi fa akrimu mhm. yonente bay wax de sallallahu alayhi su ngeen dépasse yéen kër gi kër gi xam nga këru presse la mu ne su ngeen demee teewoon seet seeti seet seetu xalif général ak ay sëtam ak ay rakkam jox leen seen wàccuwaay ne jox leen na yéen yàlla lañ fi teg ngeen di kilifa ñëw ni en tant que journaliste di leen nuyu ci turu kër gi waaye nag taataan nañ leen lépp loo xam ne dana fi bala jëm ko dinañ ko jottali jaam yi mhm. kon fa iza atakumul karimul qawmi fakrimu lu ma xati qalilan yukfika min xarika si na du yur dëkk loolu loolu moo daal tey jii mhm. Pape Sane mhm. léegi laa yóbbu samay soxna mu ngi ñoo dem Louga Louga gàmb ji waaw ba ma demee ci fii euh, euh, euh, transport bi nga waxati boo marisé boo marisé lo taxi boo xam ne bi danañ fay trois mille cinq cent huit mille la ñu wax nii nii nii nii. huit mille francs ma dawati dem ci fi nga xam ne bii cinq mille la ñu ne sept mille cinq cent <laughs> ma daw ma ne ko ko lekk dugg leen kaaru ndar ñu ne kaaru ndar onze mille cinq cent. Mhm. ci bus bus war dem ba Louga onze mille cinq cent bus war dem Tivaouane huit mille francs bus. billaahi yàlla wax na ci alquran loo xam ne bii ku ko defee ay caaxaan na nga nax sa bopp. <laughs> inna allaha tayyibun képp koo xam ne yaa ngi jël transport di ko yokk na nga xool balaa déwén da nga toj moteur. Mm. di nga paan boîte bëgguma yenn du ma ci àgg ndax jullit la mm-hmm. yooyu yëpp boo ko def mooy xeetu circuit corruption bi nga def loo xaraam li nga lekk mm-hmm. bu am na wali yu newoon ci biir oto ba xolam tàng te yëgal ko mm-hmm. moo tax yéen ne sàkku leen tuuti te dagan kon yam leen ci passe normal daggan googu noonu lu gàtt gàtt gàtt du tee tamit tamit danga am barke da nga mën a am versement mun a xayrul moo gën min kasirin mooy yokkaat passe bi xool Seydina Muhammad mu ne yurdika mu alag la sànk la te ëllëg day topp yomal xiyam mhm. mbokk mi bëri na man ci man sama bàyyi transporteur la man dama jaar ci oto sama fi jaar oto yàgg naa leen ko wax mhm. képp kuy di di yokk di di ko saaga di ko gëdd ci xam nga lu taxoon coxeur mhm. da war am oto am lépp mais li ngay daan lekk li araam loolu mooy këpp sa kaw loolu du ma oto rek képp ku lekk lu araam xoolal mu jëm état buy lekk alors réew mi xoolal mu jëm man bu ma lekk alal alal fii wala feneen xool sama mujj. Mhm. waxi yàlla du waxu rasulillah te ku dugg ci bàmmeel duñ laaj sëriñ sa jëf la doon laaj. Mhm. ku la mën a jur du ab yonente la wala sëriñ la ku dugg ci bàmmeel yàlla neen soxlu ma ñooñu nga may tudd yow lu ma li taxoon ma sàkk la laa lay laaj. Mhm. kon moo tax mu ne sallallahu alayhi wa sallam kon laa tadxulu jannata xataa tu'minu walan tu'minu xataa tahabbu. hal adal hal adal lakum ala cheyin mun afsu baynakum salaama kenn ci ñun du dugg àjjana te gëmoo yàlla. Mm-hmm. paasam dëgg la. te gëm yàlla du mën a nekk mukk ñun te bëggante wuñu. Mm-hmm. xoolal yonent bi mm-hmm. un grand professeur un grand communicateur un grand journaliste mu ne yéen jullit ñi la wax kenn ci yéen du dugg àjjana te gëmoo yàlla. ndax ku gëm yàlla doo sàcc. doo fen doo ñaaloo. doo naxaate. mu ne du ngeen dugg àjjana mukk gëmu leen te gën du mën a nekk te bëggante wu leen. ndax bëggante nañu. ci kër sëñ ndax bëggante nañu ci politiciens yi ndax bëggante nañu ci daayira yi ndax bëggante nañu ci association moo xam bu ñu ci mën a doon culturel et sportif mu ne du ngi dugg àjjana gëmu leen te ngëm du mën a nekk te bëggantewu leen mm-hmm. yonent bi toog ne wax xanaa du ma leen xeral ngeen bëggante mu ne afsu baynakum salaama muy siiwalante leen jàmm jàmm ji nag du nuyoo mooy paasan su ma nekkee ci tiis mu ne mu ñëw ne ustaas massa mm-hmm. jàmm ngoog mm-hmm. man ma jékki-jékki am ordonnance paasa na ma maa ngi lay vieux maa ngi lay lekk xaalis. Mhm. jàmbango. Mhm. ma nekk ci xat-xat taxaw jë alekaar war a dem ma tàdde naa eh oustaz foo jëm wala sëñ bi foo jëm. Mhm. dugal ma wàññi yoon wala ma yóbbu la. salaaman la ay communication ma ay mooy mooy acte. acte bii mooy li am importance. waaye islam Sénégal ji ëpp na moo dañuy tànn di way di way di way ba fajoon ko dem si yoon waaye. bëri na ko ni ci ordonnance fële ci hôpital ba ordonnance yu deux mille cinq cent ko rey bëri na ko nekk en prison au lieu ñu génne ko fay ko location dimbale doomam ñu jàng mais musulman yi jarul leen. Mhm. moo tax ñu bëri bëgg na Rasulullah mais xamuñu kan mooy prophète Muhammad Rasulullah. Mhm. léppam action sociale sallallahu alayhi wa sallam et morale éducation éducateur la woon. Mhm. kon daal ma dugg foofu rek. wan ne juddu yonent bi am na solo. sallallahu alayhi waaye dundam moo ko ëpp solo. jërëjëf yaa Seydi ñu ngi lay sant bu baax waaye euh, ci ci bu gàtt rek lan ngay wax ñi nga xamante ne dañu naan euh, gàmm